marhaban mboolem yéenekaay yi daal nañuy xëyandoo ni ki tey jii dafa bu jàngat jëmale ko ci tënk di maanaam conclusion mi tukkee ci commission politique dialogue national gi ginnaaw bi ñu ko ubbee officiellement fanweeri fan ak benn ci weeru mai liggéey yi daal nañ leen amal ci diggante juróomi ñeenti fan jàpp ñaar fukki fan ak benn ci weerum juin naam sax benn pàcc ci opposition bi daal nañ koy gedd du teene yéenekaay yi ñu ngay xam ne solution bi ñu daal di manko ci biir dialogue ngir fexe ba Karim Wade ak Khalifa Ababacar Sall mën a bokk ci élection présidentielle yi ñuy dëgmal daar nay indi ay lënt-lënt ci ñenn ci ay observateur li ko waral moo di ñoom ñooñee dañoo jàpp ne président Macky Sall dafa daal di amal la dialogue ngir mën a lewal ñetteelu candidature am ci élection présidentielle yi ñuy dëgmal Vox Populi nañu dialogue bi daar nañ koy ndar képp yi taxawu temb jafe-jafe itam daal nañ ciy feeñ li ko waral bu ñu sukkandikoo ci suñu naatango yi moo di ne acteur ya nga xamante ne ñoo demoon ci biir dialogue mujj ñu déggoo ci ay poñ yu mel ni ki ñu war a tànn ngir mu organiser élection présidentielle yi cumulu fonction di maanaam doon bu njiital réew di woy itam di doon njiital parti dakkal teg loxo yi di maanaam arrestation yi ak teggi loxo itam di maanaam libéré ñi nga xamante ne ñoom la jàppoon naka noonu itam mu ngay xam le ni ñi bokkoon ci biir dialogue mujj ñu jeexal seen 57 code électoral gi Sud Quotidien nañu société civile gi nga xamante ne bokkoon na si dialogue ba naam d'accord nañ ci waaye bégguñ ci li ko waral moo bu ñu sukkandikoo ci kenn si ñoom di Jibril Ñing mi bokkoon ci boobu la dialogue daat na xam le ni globalement am nañ ci mbégte waaye yi les résultats yi ci tukkee gëmul ni mun nañoo gën a dëgëral démocratie bi ci réew mi ak itam wàllum jàmm ji yéene kaay source moom si jójule jamono moom daat nay anticiper jëmale ko ci ay jafe-jafe yu mën a juddu ci déggoo yu ñu daal di déggoo ci biile dialogue politique rawatina ab ponk bu jëm ci révision bi ñu wax ni daat nañ ci déggoo si dialogue ba jëmale ko ci procès wu Karim Wade suñu naataango yi nañu moom mi ñu atte woon ci jëmale ko ci wàllum enrichissement illicite bu ñu ko naree attewaat loolee nag dafay jël temps bu gudd lool donte sax moom njiitu réew mi su fekkente ne bëgg na lu ni mel ngir tënku ci déggoo mi tukkee ci commission politique bi du teene suñu naataango yi ñu ngay xam le nii ab bu gudd lool lay doon ginnaaw ba nga xamante ne kii di Karim Wade a yéeni kaay le moo di taxawaay namoon na amal yéenekaay bi nañu bile plateforme daal li mu bëgg ci ajuma ji moo di ñëpp daal di sol lu weex ngir wane ni ànduñu benn yoon ak ñetteelu candidature président Macky Sall moom njiiti réew mi déclaration bi mu def fale ci Paris te muy xamal ay àndandoom nañu dox jëmale ko ci wàllum progrès ak ndam ci 2024 yéenekaay Le Quotidien mu ngi xamle ni waa F24 li ñu jàngate ci kàddu président Macky Sall yooyu nag moo di ne dëggal na ni dina laajaat beneen mandat ci biir réew mi jàngeen Les journaux sénégalais parus ce vendredi consacrent leur manchette principalement à l'actualité politique en analysant notamment les conclusions de la commission politique du dialogue national lancée officiellement le 31 mai dernier. Les travaux du dialogue national effectués du 9 au 21 juin, boycottés par une partie de l'opposition, ont été bouclés jeudi et les rapports des commissions transmis à son coordinateur Moustapha Niass, ancien président de l'Assemblée

affirme que le président de la République Macky a fait de ce dialogue une monnaie d'échange afin de valider sa troisième candidature à l'élection présidentielle de février commente le témoin quotidien. Le dialogue terminé, le Sénégal à l'écoute de Macky s'exclame en une Vox Populi, citant la cellule du dialogue politique. Le journal renseigne qu'en deux semaines, des consensus forts ont été trouvés, y compris sur les questions politiques qui paraissent les différentes commissions, poursuit le journal. L'As quotidien de son côté liste les fausses notes du dialogue national. Les acteurs n'ont pas trouvé de consensus sur les points relatifs à l'organe de tutelle en charge des élections, le cumul de fonctions de chef de l'État et de chef de parti, l'arrêt des poursuites et la libération des détenus et la déchéance électorale comme peine complémentaire mentionne le journal. Dans ces colonnes, l'AS fait processus électoral et la modification de l'article L57 du Code électoral. Évoquant les conclusions mai d'une partie de la société civile par la voix de Djibril Ning, partie Bien que globalement satisfaisants, ces résultats ne sont pas de nature à renforcer notre démocratie et la paix, a-t-il fait savoir. Source A anticipe pour sa part les difficultés de la mise en œuvre des consensus auxquels les participants du dialogue sont parvenus en s'intéressant particulièrement à la révision annoncée du procès du fils de l'ancien président de la République Abdoulaye Wade. La commission politique du dialogue national est d'accord

blancs partout, souligne le journal. Nos confrères relaient l'appel lancé par les leaders du f aux populations à s'habiller en blanc à l'heure de la prière en signe de protestation et de refus d'une troisième candidature de Macky Sall. Selon toujours le quotidien Le Quotidien, la déclaration faite par le président de la République mercredi à Paris et dans laquelle il a parlé d'aller vers la marche du progrès, vers la victoire en 2024 perçue par le F24 de sa volonté à toutes